لا إله إلا الله
رضينا بالله ربا وسامدنا مولى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا ربنا زادنا مسلما ربنا كنا من الحسن
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko sunu xutba tey mooy maada qaddamta li diinillah mbokk jullit bi man ak yow lan lañu liggéeyal yàlla ci diineem ji kenn ku nekk ci ñun julli si tey juma nekk ci biir walla ci kaw walla ci biti laaj bi laaj ko sa bopp fi nga toog maada qaddamtu li diinillah diina ji di diina yàlla di lislaam lan laa ci liggéeyal yàlla axil xabib inna albaatil fi hada alasr sawla wa jawla wa kalima wa mawqif wa man tafasha albaatil wartafaat kalimatuh إلا لاتخاذ لأهل الحق ونكوسهم عن مواجهته وإزحار محاسن الحق الذي يحملونه وينتسبون إليه mbokk yi xam ngeen li tax mbon tasaaroo tey ñun ñëpp ñu mën a seede mag ak ndaw góor ak jigéen ku xam ak ku xamul biir réew meeg bitim réew ñun ñëpp ñu mën a seede ne mbon ni mu tasaaroo nga xam ne fu nekk wala ngaan na dugg fa bàyyiwul kër bàyyiwul mbedd bàyyiwul gox bàyyiwul koñ fu fu nekk rek mbokk yi mbon gi nee na fa saraax kàddu mbon yëkkatiku na yàqute tasaaroo foo ko natt wees na ko lenn rek waralu ko lulul yaafuus gi waa dëgg yaafuus torox gi waa dëgg torox sëggal seeni bopp gëmm seeni bët ub seeni gémmiñ bloqué seeni loxo lem seeni tànk ñoom waa dëgg looloo tax mbon daa di am fit daa di tasaaroo waa dëgg ñàkk a taxaw gi ñu ñàkk a taxaw di défendre dëgg ak di ko leeral ak di ko feeñal tax nañu ñekk ci caaxaan ñeme waaye waa caaxaan ñoom yemuwuñ ci rek sax di tasaare seenug caaxaan inna ahla albatil yudaafiuuna an batilihim ñooñu nga xam ne ci caaxaan lañ nekk ak mbon ak yàqute dañuy taxaw di ko défendre yemuñ ci taxaw défendre ko sax waaye wa yabzuluuna fi sabili nashrihi wa iqnaai nnaasi bi kullu xaalin wa nafis yemuñ ci tasaare ko waaye dañoo pare pour dépasser lépp loo xam ne ay moyen la ak jéem a convaincre nit ñi financer lépp lu yomb ak lu jafe ñoom amal nañ ko pour seen mbon tasaaroo loolu sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moo nu ko nettali taxawaay gi waa mbon taxaw taxaw bi yéeféer yi taxaw pour caaxaan tasaaro waaye na ko nit ñi gëm na ci ñëpp nekk ku ci nekkul bokkoo suñu borom ne wa qaala alkaafiruuna haada saahirun kaddaab ajaala al aliha ilahan wahid inna haada la shay'un ujaab فانطلق الملأ منهم أن امسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق سورة الصد آية 4 borom bi nee na yéeféer yi dañoo taxaw doon nëbb sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam pour teg tànk mission bi ko yàlla yónni bu mu tasaaroo bu ci kenn dugg ba tax ñu taxaw naan haada saahirun kadab kii kat jabarkat la du ab yonent waaye waxul dëgg ndax lu tax waxul dëgg te jabarkat la li koy wane mooy téeméeri yàlla ak fukk ak ñett moom mu bu ko def benn yàlla loolu mbir mu yéeme la loolu munu nekk yemuñ ci loolu waaye fantalaqa al mala'u minhum ñooñu lan mooy seen liggéey animsu wasbiru ala alihatikum jël nañu ay nit mbooloo al mala tasaare leen ci biir dëkk bi jox leen ay moyen ñooñu lan mooy seen liggéey mooy bu leen bàyyi seen yàlla yi jàpp leen ci de kii li muy wax bu ko kenn dégg bu leen jullee ci moom xatal leen ko fi muy jaamoo yàlla animsu ala alihatikum jàpp leen ci seen yàlla yi bu leen bàyyi li ngeen nekkoon démb ak barki démb moo lool di diinay xale moo loolu mag ñi xamuñu ko di moo moo moo moo moo aninsu ala alihatikum continue leen ci li ngeen nekkoon wasbiru na ngeen takku te téye yàlla yooyu ak xërëm yi bu leen ci bàyyi dara bu ngeen ko defee day bàyyi li ngeen nekkoon démb topp ko tey ci li muy wax inna haada la shay'un ujaab loolu de mbir mu yéeme la mbir mu doy waar xanaa xamu leen ne sax moom li muy nekk li muy wax du dëgg xam ngeen lu tax du dëgg maa samina bi haada fi millatil axira ñun mosuñu koo dégg li muy wax nii ñi fi mës a jaar ñëpp waxuñu lii moom mu bëgg a ñëw bëgg na yàlla kenn la loolu luñ ciy dégg mooy caaxaankat yi ñoo taxaw fokat yi ñoo taxaw ñi réer di woote naan innaha daawatun ila shirk xoolal ñoom lan la ñu wax bu leen bàyyi li ngeen nekkoon démb loolu woote la jëme ci bokkaale yamul ci sax a daawa ila shirk waaye wal kufr gis nga bokkaalekat yi dañuy woote tey kaay leen ñu bokkaale ku bëgg a bokkaale ñëwal place sangam tey loolu moo am yamuñ ci woote ci bokkaale yamuñ ci woote ci kufru weddi yàlla waaye wa dalaal ak réer yamuñ ci woote ci waaye attawaasi bi sabr ala ibadati gayrillah nga gis nit ñoo xam ne li ñuy jaamu du yàlla ay nit ñaa ay nit ñëw naan leen continuer leen de jàpp leen ci mu dëgër bu leen bàyyi nga gis naa wax caaxaankat fokkat ki nga xam ne li mu nekk bu ci dee yàlla da koy lakk nga gis ku taxaw naan ko jàppal mu dëgër bul bàyyi yaa ngi ci dee moo tax mu ne nekkul rek daawa ilal shirk wal kufr wa dalaal waaye atawaasi bi sabr ala ibadati gayrillah nga gis ku jaamul yàlla ñu ne ko muñal jàppal ci li nga nekk min attawaaxit ci jaamu xërëm wal ahjaar wal asjaar wal afkaar wal mazahib wal manahij nga gis koo xam ne ay xalaatam li muy xalaat dara du ci yàlla li mu bëgg a dund def ko ngir def ko yoon du yàlla ay garab ay xeer ay xërëm loolu la waa ji di jaamu nga gis ñu naan ko continuer jàppal mu dëgër bul bàyyi wa laysa al amru muqtasar ala daawa faqat yamuñ ci woote mbokk yi mbon gi tasaaroo ci Sénégal dara tasu ko yamul ci woote kese bal innahum yabussuuna atbaa'ahum fi sufuufi aljamaahir li tasbitihim ala alwafaa'i li hada almabda alxabiis walhadaf alqabiix yamuñ rek ci woote waaye dañoo fexe ba saxal seeni àndandoo ñi leen topp ginnaaw financement ak moyen ak encouragé di leen saxal ci principe yooyu nga xam ne dara du ci diine yàlla lépp shirk la ak kufr ak bidaa ak lu kenn xamut mbokk jullit yi mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala jamono bi nit ñi jaamu xërëm di bokkaale di moy yàlla tabaraka wa taala ci jamono boobu ñun kenn ku nekk war na laaj boppam maaza qaddamtu li haza diin man lan laa def ci diine ji hal tazakkarta axi anna diinika haada diinika haada allazi tudiinu bi mustahdaf bi aadain marir wa kaydin tawil yow sama mbokk julit est-ce que xam nga diina ji di diina yàlla di islaam xam nga tey ay noonam fu ñu toll ci noonu ko est-ce que xam nga loolu est-ce que am nga conscience ne soo dëgërul soo takkuwul soo mattul sa diine ci ay dëgëj est-ce que xam nga ne danañ yàq sa diine ji jàngal téere boobu ñu naan qaadaatul garb yaquluun dammirul islaam abidu ahla benn téere la boo xam ne tasaaroo na tey ci àddina bi ñu tuddee ko qaada qaadaatul garb yaquluun njiitu occidentaux yi li ñuy wax téere bi noonu la tudd jàngal loolu bu baax a baax a baax wala nga dem ci ko xam mu nettali la ko mu wax la dafa nekk kon di nga xam diine islam tey fan la toll ci àdduna axi yow sama mbokk hal alamak est-ce que metti na la li ngay dégg tey ci diine ak di ko gis ndax metti na la julit yi ñuy rey partout ñi ñu leen di toxal di màbb seeni kër ñii sax di ñëw ba ci jàkka di ko xatal di ko bëgg a def seen dëkkuwaay est-ce que yaa ngi gis loolu di bund xataal jullit ñi partout est-ce que yaa ngi gis loolu ndax loolu métti na la yow ndax deret jullit yi ñuy tuur ci àddina bi yow sama mbokk jullit métti yooyu ak coono yooyu ñuy teg jullit yi ndax métti na la axil habib maaza qaddamta li diinillah lan nga defal yàlla ci diineen ji su'aalun yajibu an laa na malla tarxa an laa na malla tarxaha wala nasamu takraara li nu xayyi fi lqulub qadiyata al amal li hada diin laaj la boo xam ne waruñoo tayyal waruñoo sonn di ko wax nit ñi maada qaddamtu li hada diin lan laa liggéeyal diine laaj la boo xam ne waruñoo sonn waruñoo tayal waruñoo yokkat ti di di ñu ko fàttali pour ñu yee lii nelaw ci sunu xol yi pour ñu mën a yëngu yëngatul sunu diine hada diin alladi taiba min ajlihi adam diine ji nga xam ne yonent yàlla aadama ba muy wàcc diine ji moo taxoon mu wàcc wa naaha li ajlihi nuux wa rumiya fi nnaar alxalil wa udjia li zabxi ismail diine ji moo taxoon nuux jooy ay at alfu sanatin illa xamsina aaman junni at yu manqué juróom fukk yonent yàlla nuux di sonn pour diine ji diina ji moo tax ñu tëral Ismaila di ko rendi diina ji moo tax ñu jàpp yonent yàlla Daawuda siyee ko en deux rey ko Yahya diina ji moo tax mbokk yi ñu jàpp Isa bu ko rey yàlla musal ko diina ji moo tax Muusa dugg biir géej diina ji moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jànkoonte ñàkk ñu bundu xataal ko métital ko damm bañam xori ay óomam rey ay sahabaam yum doon àndal diina ji moo tax ayuhal ahbab diina ji lañu yàlla tànnal mu nekk ngeen gi diine yàlla mu nañu kuntum xayra umma uxrijat linnas taamuruna bilmaaruf wa tanhawna an il munkar wa tuminuuna billah dina ji laa leen tànnal pour ngeen war cee yëngatu mu nekk ngën gi diine yàlla nee na ma tànn leen ngeen nekk ngën gi xeet ma tànn leen ci biir nit ñi uxrijat linnas waaye lan ngeen def ba gën nit ñi mooy taamuruna bilmaaruf da ngeen di digle lu baax di tere lu bon waaye ngeen ne kenn ci gëm yàlla tabaraka wa taala diina ji lañu yàlla wax ne infiru xifaafan wa thiqaala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun départ leen tasaaroo leen moo xam da ngeen a màgget moo xam da ngeen a nekk ndaw infiru xifaafam wa siqaala moo tax abul ayub al ansaari dafa màgget gumba màgget gumba ndeysaan mu dégg aaya bi mu daal di xëy rek jël jaasi doom yi jàpp ko ne ko bàyyi foo jëm mu ne damay jihaat ci yoonu yàlla ñu ne ko da ngaa màggat te wéroo te màggat nga te da ngaa gumba munoo dara mu ne xanaa déggu leen aaya bi ñu ne ko ban aaya la mu ne yàlla nee na bu ngeen nekkee ay màgget ak bu ngeen nekkee ay ndaw yëpp dem leen jihaat ci yoonu yàlla gars yi ne ko ban aaya la mu ne infiru xifaafan wa thiqaala xifaaf mooy bu ngeen oyofee nekk ndaw thiqaal mooy bu ngeen màggetee gis nga moom aaya ba na mu ko déggee gars yi daal di koy bàyyi mu dem ñu rey ko mu daal di shahid ci islam mbokk yi ci yàlla maada qaddamna li haza diin diina ji lan lañ ko defal kenn ku nekk ci ñun laajal laaj bi sa bopp ndax mën ngaa sonn mës ngaa sonn ndax diine nii ñuy sonnee tey ci àdduna di kër kër yi mu jaral lañu lu ne kan ci ñun moo sonn noonu lu toll ci diine beneen bi mooy ku nekk ci ñun bi nga xëyee fajar ba julli ba pare tegal programme ba ba ngay tëddaat li nga liggéeyal sa bopp ak li nga liggéeyal diine lan moo ëpp sa waxtu wi 24 heures bi yëpp teg ko sa kanam bi ma yeewoo ba ba may tëddaat tey jox naa yàlla nangam lii laa jox sama bopp ñu nga calculer nga xool ndax du li nga jox sa bopp moo ëpp li nga jox yàlla mbokk yi nan góorgóorlu ci sunu diine nanu sonn ngir diine ñu xam ne àdduna luñ ci sonn sonn fi lañ koy bàyyi dem ci yàlla tabaraka wa taala dana nettali qissa tilkal mar'a an nasaraniya ay mbokk julit dañu jël seen oto def ci li ñu war a def yëpp génn ne dañuy woote ji ci yoonu yàlla fi ñuy jaar ci ay xeer tali yu ñu godranewul garab yeeg montagne yeeg tàngaay beeg poussière beeg pënd bi ñenn ñi nekk ci oto bi ñu ci ëpp ci ñoom découragé dëgg dëgg dañ doon liggéey ji yàlla waaye daal coono gi ëpp na lii ndax coono bu metti ndax fa ñu jëm yeggaguñu fa te sonn nañu ci biir àll boobu ci biir pënd boobu ci biir poussière boobu ci biir métit boobu ñu jekki-jekki gis benn jigéen bu war mbaam mi ngi takk croix ñu ne tëll seen oto dajeeg moom oto bi taxaw mu taxaw chauffeur bi ne ko waaw yow foo jëm mu ne dëkk sàngam loo fay uti mu ne damay liggéey ji sama diine ñaata at nga fi def mu ne def naa fi ñaari at ñaata at mu ne ñaari at def naa ko ci dëkk bi ci àll bi kon xoolal ñooñu seen oto kii mbaam ñi ay góor kii jigéen ñun ñëpp loolu moo nu dal kenn ku nekk ci ñun doo fàttaliku sa diine benn yoon jàng leen beneen xissa ba ku jigéen koo xam ne dañ koo invité ci benn congrès islamique mu ñëw toog gars yi di wax diine islam di ko leeral di ko leeral di ko leeral ndaw si daal di yëkkati loxo ñu may ko mu mu daal di ñëw jël micro bi mu ne dama yaakaar ne yéen lii ngeen di wax ci lislaam du dëgg nii ngeen ko waxee nii ni mu rafetee nii lii nii est-ce que dëgg-dëgg li moo nekk ci alxuraan bi ak sunna bi kay ne ko waaw mu ne kon yéen bu ngeen deewee di ngeen layoog yàlla gars yi ne ko ndax lan mu ne parce que jógu leen pour liggéeyal diine ji pour nit ñi xam ko dugg ci kon yéen na ngeen yëg na ñu yenu ay bàkkaar ngeen lu tax ndax leeralu leen diine ji bu fekkee lii ngeen wax nii mooy islaam ba pare ngeen dem tëdd ni nelaw kon yéen ëllëg di ngeen layoog yàlla mbokki jullit yi ku mu doon ci ñun na xool boppam fi mu toog lan la liggéeyal yàlla lan la def ci diine ji ndax tànkam bi mas naa pënd ci diine islam bi ndax loxoom bi mas naa yëkkatiku ci diine lislaam bi ndax gémmiñam gi mas naa wax ci diine ji kenn ku nekk ci ñun xalaatalal sa bopp ndax bés ñëw na nga xëy ndax diine islaam allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله ماذا قدمنا للإسلام لن لن يجيتل pour إسلام هل سامحت بشيء من أجل نصرة هذا الدين mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun toog fii tey ndax mas ngaa dégg ñuy woote di woote ci turu lislaam nga dem participer ji ndax mas ngaa dégg jàkk ji ñuy tabax nga jël sa dërëm def ci ndax mas ngaa dégg teen bu ñuy gas nga yëkkati sa alal def ci ndax mas ngaa dégg daara bu ñuy tabax nga yëkkati sa alal def ci bal au contraire ñun dañuy fekk jàkk ji ñu war a tabax ñu ne nañ ko def stade nañ ko def foyer de jeunes nañ ko def nañ ko def ay magasin moo tax xool leen jàkk yi ci Sénégal yépp ngay fekk ay magasin ñu ko fi wala ay cantine wala ay ay ay ay benn waay doon na ma nettali sax mu ne sunu koñ simbkat yi dañ doon simb amuñu fu ñu jëlee courant gars yi xëcc leen courant ci jàkka ji bal sax ci wetu jàkka ji la ñuy misigee da ngay nekk ci biir jàkka ji di julli doo mën a julli ndax lan ndax musique allahu akbar mbokk yi hal hal saamahta fi tawbati ahadil hairin ndax bés ñëw na mës ngaa kër këri góorgóorlu ba kenn ku réeroo nekk ci caaxaan nga génne ko ci du ngeen fàtte semaine bële passé am na benn xew-xew bu amoon ci xew-xew yooyu ñuy tuddee diine benn waykat teew fa ci wetu jumaa ju mag ji gars yi daal di ko fay woyloo mu nekk benn problème ci biir réew mi ñëpp di wax di way romb stade yi romb terrain yi di way di way ba ci biir jàkk mbokk yi kenn ci ñun hal kunta min al musaamihin fi insha'i masjid ndax mës nga participer benn saako ciment ci tabax jàkk aw markaz islam wala benn centre islamique ndax kenn ci ñun mës na ci joxe ñaar dërëmam hal anta anfaqta min malika fi sabilillah daaman li ta li taalimi diin ndax mas ngaa jël sa alal nga dugal ko ci islam ndax ñu jàngal jullit yi ndax loolu mas nga koo def wa taarif fi balad fi buldan al ifriqiya haysu turfa at tansiriya da ngay dugg ci Afrique fekk ay jullit yoo xam ne ñu ngi leen di génne ci islam di leen dugal ci nasaraan bal sax Afrique la ñuy wax waaye bu leen dem Afrique fii ci biir Sénégal da ngay dugg ci biir fekk ay jullit yuy murtat ñu leen di defaat leneen lu tax ndax seeni mbokk jullit yi toog di leen seetaan ba ñeneen ñëw di leen dimbali ñu jàpp ne loolooy dëgg ñu daal di bàyyi liñ nekkoon dem fee chaque jour ñu jox leen misaal ixwaani fillah hal rasalta ahad li tad'uhu lil islam est-ce que mës ngaa jël sa téléphone def ci crédit woo ñaari nit pour leeral leen diine pour dugal leen ci islam ndax mas nga def loolu hal kunta mimman yatba al matwiyat ad da'wiya wa yuwazzi'uha aw yada'uha fil masajid est ce que mas ngaa jënd ay téere indi ko ci jàkka ji pour nit ñi di jàng wala mas ngaa jënd ay téere yóbbu ko ci daara ji pour xale yi jàng kan ci ñun moo mës a yóbbu suukar wala ceeb ci daara kan ci ñun moo mës a yóbbu ay ordonnance ci hôpital kan ci ñun moo dem ba ci àll bi fekk fa ñu dul naan dafa leen teen indi leen ndox kan ci ñun ñaata ci ñun saa yoo déggee sénégalais di dajale seen alal caaxaan la ak fo kam wa kam wa kam wa kam kenn mun ko wax ñaata ñaata ñaata ci loo xam ne tey jullit yay toog loo xam ne bu ko bu jullit yi jógoon kenn waxatu ko bu jullit yi jógoon pour liggéeyal diina ji kenn waxatu ko waaye réer ak ñàkk a xam ñàkk a jàng kenn ku nekk danaan man lan laa mën a def lan laa mën a def man damaa mën dara soo nee munuma dara kii ne munuma dara kii ne munuma dara kan mooy mën yàlla bi muy yónni yonent kenn la woon kan moo ñëw Aboubacar ku ci topp ku ci topp ku ci topp par kenn kenn ñuy ñëw keroog ba Aboubacar duggee tàllal loxoom ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dafa ne yonent bi lan moo ma war yonent bi ne ko li ma war tey moo la war yow mi Aboubacar mu daal di génn ay minutes yu ndaw mu indi Ousmane ibnu Affan mu ne yonent kenn ngi nii day tuub ca suba sa mu ñëwaat indi Bilal ginnaaw suba sa mu ñëwaat indi Arqam ibnu Abil Arqam ginnaaw suba mu ñëwaat indi Ousmane ibnu Mazun noonu la ko Aboubacar toppee bés bu nekk mu indil yonent kenn bal sax loolu dafa tuuti da ngay jàng ci histoire ñu ne am na fukki nit ñoo xam ne yonent moo leen joxoñ baaraam ne leen yéen da ngeen di dugg aljanna ashara al mubashirina ashara al mubashirina bil janna ñaata lañ fukk juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci islam juróom-ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci islam kenn ku nekk si ñun toog fii ñaata nit nga dugal ci islam ñaata nit nga indi ci sunna axil karim yumkinuka an tafala shay'an li xidmatika li diinik mahma kaanat imkaanatik mahduuda kenn ku nekk ci ñun toog war ngaa mën a liggéeyal diine ak sa moyen lu mu néew néew néew néew néew ak sa kattan fu mu toll war nga mën a def ci diine ji dara lu tax fa inna majaalaat xidmatil islam kasira jiddan fu ñuy liggéeyal diine dafa bëri du tabax jàkka rek du tabax daara rek du def teen rek maanaam dafa bëri yow soo mënul lii am nga loo mën ku nekk am nga loo mën benn jigéen dañuy laaj ndimbal bu jëm ci lislaam mu dem biir néegam xool ba sonn amul lu mu joxe mu daal di tekki musóoram ndeke yàlla may na ko kawar gu gudd mu daal di létt kawar gi def ko benn buum kawar gi la tàmbali létt def ko benn buum ba ci suuf mu daal di koy dagg ci bopp bi mu jël benn diw daal di koy def ci kawar gi xëcc ko ba mu tàlleek mu daal di koy lëmës mu yeewu suba kawar gi daal di nekk benn buum wow koŋ mu daal di koy lem pakete ko mu bàyyi ba guddi mu fëgg amirul mu'minin amir ne kokkal la mu ne man mu dégg baatu jigéen mu ne subhanallah jigéen guddi fëgg amirul muminin du ma ubbi demal ba suba ndaw si ne ko yàlla teg la fi pour jaamu yàlla yi nga naan ba suba yow ñu teg la fi pour jaamu yàlla yi nga naan suba mu tiit mu ubbi mu ne ko mbaa jaamu la mu ne ko damaa dégg ñuy laaj ndimbal bu jëm ci lislaam awma lu ma joxe waaye lii sama kawaru bopp la defar naa ko ba mu nekk benn buum dama bëgg suba ñu jox ko kenn mu ngalaabe ko fasam mu jihaad fi sabilillah mbokk yi ñun ñu toog kooku xoolal li mu joxe ñun kenn ku nekk am nga lu ëpp loolu kon nanu bàyyi xel sunu diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sabaqa dirham alfu dirham fa qaala rajulin wa kayfa zaaka ya rasulallah benn yonent bi nee na dërëm jiitu na ñaar fukki junni ñaar fukki dërëm dërëm jiitu na ñaar fukki junni saaba yi nee na ko mu nekkee dërëm nu muy gënee dërëm nu muy jiitoo mu ne mooy waajoo xam ne dégg na ñuy wax ci yoonu yàlla mu daal di génnee dërëmam de jàngeen xissa nam la Suleymaan Suleymaan toog na xorondom bu ndaw daal di matt benn pepp dugub ñëw di jox si Suleymaan Suleymaan waaw mu ne lii la benn xorondom benn pepp ceeb yow su xanaa xamoo man maay Suleymaan man bu may dem armée rek sama armée du ma yëg ci ay motaar ak i fas ci ngelaw li laa yéeg ndax fas ak ay motaar ak oto attanuma ngelaw li moom a yóbbu jàngeen ko yàlla mu ne xuduwuha shahr wa rawaawuha shahr armée Suleymaan mu ne nga may indil lii mu ne ko ñun lii la nu yàlla jox te lu yàlla nangu moo ëpp solo lu bari lu tuuti tuuti su ko yàlla nangoo moo ëpp solo lu amul benn nanu fexe ñu góorgóorlu mbokk yi ñu yaatal suñu xol yi dugal ci islaam bu nu dara gënal suñu diine nanu bëgg suñu diine màtt ko suñuy dëgëj lépp loo yóbbulul yàlla ëllëg doo ko fa fekk loo defalul yàlla ëllëg doo ko fa fekk kon laaj bi mooy kenn ku nekk ci ñun waxal maada qaddamtu lu diin lan laa liggéeyal diine musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno holko gardinmi holko mbaɗanmi ɗum ɗo ko woni diinam ko woni islam holko mbaɗanmi ɗum namgal ngal ganduɗa goote e men fof ɗo jooɗi ɗo ina hucciti funnaange ina fu- ina hu- fucciti e qibla omo foti ɗum namdade e hoore makko holko mbaɗanmi diine gooto e men fof so juuli fajiri o gayni o fu- omo fucciti omo hucciti qibla omo hucciti funnaange yo namɗo hoore makko ɗo jooɗi ɗo o wiya holko ligganimi diine nde o fini nde ha nde o leltoto nde o ƴeewa waktuji ɗiwo totti allah e ɗiwo totti hoore makko holko ɓuri en taway goto e men fof waktuji mum seeɗa o totti hen allahu subhanahu wa taala te sen ƴeewi hande fijoɓeɓe waɗoɓe ko boni ko en ƴeeway hande yimɓe fina gila subaka ha kikiɗe koye estan goni ina juuɗi ina ina ina ina jeeɓa fijirde walla koye yeeso télévision jooɗiɗa aɗa yeeɓa fijirde so fijirde nde gasini jooɗoɗa aɗa yewta hen aɗa yewta hen aɗa yewta hen ha goga jaaha leloɗa misal bu ndaw rek mi ñuy sonne ci match yi match yi football yi xawma Juventus lañ koy wax xawma nuñ koy waxee li mu jaral li mu ñu jaral toog di seetaan match ba match bi jeex ñaata minute la 90 minutes ah après nga toog di commentaire ba 2 heures du matin xoolal 90 minutes yàq nga ko diggante timis ak gée julli woo timis julli woo gée yemoo ci loolu waaye nga toogaat di commentaire di commentaire ba 4 heures du matin ñun ñëpp suñu waxtu yi noonu la enen foof gurdam men koye ɗum ɗo gaynuɗen ɗum so football o yeehi lambaka ara ɗum ne gona hen so ɗum ɗon yeehi théâtre o ara gona hen so ɗum ɗon yeehi goɗɗum ara gona hen holko tottuɗa allah holko mbaɗanɗa allah mijoɗen koye men gurdam men gasat koko raɓɓiɗi gurdam men koko raɓɓiɗi hay goto wonta ɗo wuur duuɓi temedere ndeke gaynen gurdam men e rewde allah ganden joni joni itteɗen e ɗeɗo galleji na wiyeteɗi titre foncé ndeke wona titre foncé titre foncé nan to fada en ɗo leltoɗa an goto wahdak ala mo tawata awa tawoma toon so wona golle ma golle ma tan tawatma toon tinnoɗen e diine men bandiraɓe ganden gurdam men koko famɗi ala no foti to yeeso allah tabaraka wa taala saabu allah duuɓi ujunere e aduna woni ñalawma ma ñalawma makko gooto inna yawman inda rabbika ka alfa sanatin mimma taudun enen duuɓi men ujunere ko ñalawma gooto to allah kono sa dañi ɗo duuɓi temedere holko dañɗa to allah minitaji dañɗa ɗo ɗum tagui wonɓe bamule ɓe soɓe pindinama ɓe mbiyama gummoɗe yawmal qiyamati yoni eɓe namde no foti duuɓi gonɗon ɗo e bamule ɗe ɓe mbi lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha hen mabɓe wiya min kay ko subaka gurmi e aduna tan maymi tawa dañi ɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wiya ko subaka garmi toon maymi oya wiya min ko kikiɗe garmi toon tan maymi tawa dañi ɗo duuɓi capanɗe jeegom dañɓe ɗo ñalawma goto on holko wiyete in labisna illa yawman on dañɗo ɗo duuɓi temedere o wiyata ko ñalawma goto gonmi aduna maymi allahumma ihfir lana qabla al maut duñu pare ludul mbokk julit yi am na sunu benn mbokk bu jigéen bu nekk ci ay tolof tolof ay jafe-jafe doon sàkku ci ñun ndimbal ñëw démb sama kër incha allah su ngeen amee lu ngeen koy dimbali buñ jullee ba pare incha allah mbokk yi ñu dajaleel ko ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu yàlla defal tawfiq du ñu xutba ba xutba bi jeex lu dul préfet bu pikin danañ ko ñaanal yàlla moo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale pour jàkka ji continuer yaatu nekk fi moom moo arrêté liggéey bi nañ yëg loolu mbokk yëpp bëggoon nañoo jóg pour indi ay histoire ak nangam nangam waaye ñun duñu ay nitu histoire ay nitu jàmm lañ jàmm la ñu bëgg waaye ku ne xam na ne am na loo xam ne fii rek nga ko mën a def mu nekk jàmm am na loo xam ne boo ko defoon fenn jeex na waaye comme ñun ci jàmm la ñu yar jàmm la ñuy wootee jàmm mooy su moo ñu tax a jóg barab bi jàmm moo tax ñu amal ko pour jaamu yàlla moo tax bëgguñu woon problème moo tax ñu ne leen ngeen dal ñu dem ndànk ci kilifa yi ba ñëwee déggal nañu moo tax mu arrêté liggéey bi ñoo ngi koy ñaan tamit mu continuer bu mu yem nii rek taxaw nit ñi di julli ci kaw tali bi nan ko fi dindi nit ñi continuer jaamu yàlla fii la ñu am fii la ñuy jaamoo yàlla ku kenn ku nekk ci ñun ku ci mun dara ñoo ngi lay taalal loxo pour nga jàppale ñu loolu continuer Sénégal rek ngay dégg nit naan gëm naa yàlla di xëccoog jàkk da ngay dem makkatal mukarram wala madinatul munawwar nga fekk benn immeuble boo xam ne soo ko xoolee mu ngi dugg ci asamaan si ndax ni mu réyee soo xoolee yaatuwaay bi doo xam nu mu toll immeuble bi waa ji bis bu nekk milliard la ci am milliard ñu ne ko immeuble bi dañoo bëgg mu jóge fi parce que day xatal jàkka ji loo ci wax mu ne joxe naa ko fi sabilillah waaye Sénégal ngay ñëw koo xam ne boo ko ne àndalal sa birig bi ma julli mu bañ puusal ma julli sax da ngay gis waa ji bañ da ngay nekk sax ci sàppe ci sàppe ngay toog gis kenn kuy ñëw ngay yaatal say tànk pour waa ji du xej ci sàppe fii rek ci biir jàkk ji ci sàppe ak ci biti nga gis sa mbokk jullit di ñëw naaj bi tàng ah au lieu nga puus ngay yaatal sa tànk bu fu toogee da koy xatal bu ko may de bul puus de toogal ni yow yal na nu yàlla wan dëgg mu wërsëgal mu topp yal na nu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukum allah